mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat euh, di leen euh, gërëm bu baax euh, dellusiwaat ci 30 minutes chrono comme ni tàmm di ko defee alxamis ju ne waxtu wi jotee tey nag ñu ci ànd ak yéen jëme rek ci actualité bi actualité bi nag waxtaanee ko mënta weesu rek li ñëpp di waxtaanee mooy élection yu jëm ci atum 2024 ginnaaw ba njiitu réew mi président Macky Sall yëkkatee ay kàddoom jëme ko ci askan wi waxoon ne 15 décembre dañ ci amal yi ñu kalaame ko ca conseil constitutionnel conseil constitutionnel weddi kàddu yi président wax ni benn kàddu gi moom moo ko yor kon ci waxtu yu néew war nañu fexe ba élection yi ñu amal ko waxtu yu néew yooyu la nag moom la laam-laamee dugg werante am ci ba ci article 36 ak manaam constitutionnaliste yi ak ñi yëngu ci wàllu yoon ku ne yëkkati ci kàddoom ku ne di wax ci la mu ca xam waaye li ñëpp xam rek tamit dëgg mooy président Macky Sall moom nguróom jeex na le 2 avril waratul nekk président bu Sénégal ci diggante bi war na amal ay élections maanaam Abana Gassi Afaga mun nga ko waxee nu ne c'est terminé jeex na mooy loolu lañ mën a wax ci président Macky Sall ndaxte ban koy jox réew mi ci 2 avril. deux mille dix neuf dana kon juróomi at buñ ca eggaatee rek nga fégal may keneen mu toog ci diggante bi nag da ngay amal ay jongante jongante yi ñu jàppoon ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum deux mille vingt quatre ginnaaw ba conseil constitutionnel tànnee ay candidats ñu tappale indil ñu fi ay kàddu yoo xam ne kenn xamul lu mu doon crise boo xam ne c'est une crise imaginaire crise boo xam ne ci xel yi ak bopp yi la ne rek waaye du ci justice bi. du ci présidence de la république du ci assemblée nationale ñu mbubboo ci waa PDS def la ñuy def loolu nag moo indi wax ji ginnaaw Karim Wade mi doon ab enfant gâté goo xam ne mun nañ wax ni xale bu ñu yàq la ay caprice am ay bëgg-bëggam mu jiital ko ci kaw Sénégal maanaam intérêt képp ci loo xam ne dafa tooñ wane ab njubat yi def déclaration ab l'honneur kàcc kàcc goo xam ne réew mi yëpp xam nañ ko mooy ci déclaration bi dafa noon benn national la waaye ginnaaw gi ba lu ñu too ci clamé bu kii di Thierno Alassane Sall ci lañu gis ni kii di Karim Wade ñaari nationalité la am ñu jafandu ca jafandu ci bus Rose Wardini Rose di na nag comme benn picc yi mënta yàqum géew ba mu roccee ko ñu ne fukk ak juróom-ñeenti candidat ñoo war a dem élection élection yooyu la nag conseil constitutionnel ne commission d' enquête parlementaire ba ñu doon amal ca assemblée nationale naka noonu justice bi nan ko fégal ndaxte ab juge bi naan Cheikh Ndiaye dugal na ab kalaame ci kanamu procureur ngir tuumaay ger jëm ci moom ak Amadou Ba ak ñeneen lu tax ñuy résumé di tënk ni mbir mi noonu la demee maanaam Sénégal booy dégg cool yi mbir mi day compliqué da ngay jàpp lu compliqué la alors que nu ko waxee nii la demee kon tey jii waruñu woon toll ci jamono yi kañ lay dem élection maanaam waxtu waroon na tax ñu xam élection kañ la ndaxte jamono ja conseil constitutionnel taxawee ci réew mi na njiitu réew mi yow kat de décret ba nga génnee woon boobu mënta jàll léegi nan sàmmonte ak yoon sàmmonte ak li constitution bi wax président de la république ba mu bindee tontu ko rek la mu ci waroon teg mooy jàpp bis léegi nag yàlla dogal tey njiitu réew mi janoo ak sénégalais yi ne day waxtaan waxtaan woowu la nag ak lu ci mën a tukkee du waxtaan wu am njariñ du waxtaan woo xam ne xaaroon nañ ko parce que Macky Sall dafa war a xam ni jeexal na tey bu woowee ay taskatu xabaaram woo ay groupe de presse am parce que dañ naan taskatu xabaar sénégalais yi lay tànn mais ay groupe de presse am la tànn parce que groupe de presse yi mu tànn ñooy groupe de presse yi mooy critique ci moom ñoo xam ne nag ñu wante dëgg foofu moom Macky jàmm rek la fay dégg bokkul ak Walfadjri bokkul ak solution gi ñu ne bokkul ak feneen ak feneen maanaam du ñàkk ni sax la mu bëgg laaj ko ko rek lañ ko koy laaj mais li ñëpp doon xaar ci moom du mu woo ñenti këru tas ko xabaar bi wax ak ñoom xaaruñu ko ci moom Macky dafa war a xam ni jeexal na di nga kum wolof yi dem ne kum leer na nga da ngay dee jaru ngay xaru da ngay yokk ay bàkkaar rek yow feeg la dee dangay dem jaru yokk ay bàkkaar te te wax ji bari sarax rek lay joxe loo mën a wax ak wax ci nu mu mën a tëddee lenn rek moo moo doon wax ji bis bi la ñuy dem élection bis bi lañ ko jàpp te yombal yombalal nañ ko ko le 2 mars le 10 mars société civile bi calculé nan ba egg ci loolu nee na sur les 19 candidats les 16 bind nañu wax ne nan respecté li constitution bi wax kon tey jii xaaruñu ci Macky Sall dialogue dialogue boo xam ne dañuy waxtaanee élection jaru ko. concertation yi di def di woote INPETO jaru ko moom li ñuy xaar ci moom mooy la Senghor defoon le 31 décembre 1980 cent décembre 1980 Senghor dafa ñëw jan janoog sénégalais yi na leen maa ngi nii sénégalais yi moom voilà aujourd'hui devant vous pour vous présenter mes adieux maanaam damay dem maanaam wax ju gàtt discours Senghor boobu tey même boo demee ci internet bi ak tey jii discours la bu gàtt bu simple. mooy ginnaaw bi ma leen jiitee ñaar fukki maa ngi nii ci seen kanam di leen tàggu ni maa ngi dem Macky Sall loolu lañu waroon xaar ci moom mu jàppal ñu bis nañu kat bis bi la ñuy dem élection balaa la 2 avril ñu tëgg élection yi am beneen président bu bees la 2 avril mu joxal lenge ngay dem ci jàmm ndaxte nag ji nga Macky Sall li jig boroom kër la waroon ñaan yàlla boroom kër bu dee génn di dem li muy wax mooy fa fa ma jëm yàlla naa fa fekk jàmm waaye fa ma jóge yàlla naa fa bàyyi jàmm loolu rek la war a yéene sénégalais yi mooy ñu yéene ko moom jàmm ca fa mu jëm mais bii dem bàyyi ñu jàmm lu tax cronique bi ma tuddee ko leen derniers mots moo mooy moo a AUX mooy ay jafe-jafe de Macky maanaam Macky li mu fiy gën a toog li muy gën a wax rek di ñu gën a indil ay problème kon tey jii nit ku ñuy gis mooy nit koo xam ne lépp da koy recentrer autour de sa personne alors que élection yi fi mu toll lu dul convaincre le corps électoral ñu jàpp bis Macky mënatul dara ci élection yi Ousmane Sonko waxoon nag ko conseil constitutionnel fàttali nan ko ko mooy moom élection yi yoonam nekkatu ci démb wax na ko ci conseil des ministres administration bi ak le ministre de l'intérieur dafa am une administration électorale ñoom ñooy organiser élection Macky njëkk gi ko gars yi may njëkk goog rek la war a delloo réew mi mooy dañ ko nangul lu nangulul Abdou Diouf nangul ko lu ñu nangulul Ablaye Wade moom mu forcé kenn nangu ko de da ko forcé ñu xam ne buñ ko toppee taal réew mi buñ ko toppee ñu kon ne di gën a tëj doomu jàmbur yi ñu ne ko kat nañ ko muñal mooy yii muy def ñëpp yi ñuy muñal la tegul dara ci yoon tegul dara ci yoon ñu naan Macky day dialogue Macky mi ngi génnee xale yi li muy def tegul dara ci yoon Macky ay bëgg-bëggam ak lu ko neex la xam tool yi mooy na convoqué gars yi dem élection campagne bi dooraat ñu xool na lay amee beneen président ku mu doon baax na mais na doon koo xam ne day am légitimité sénégalais yi ñoom ñoo ko tànn mais munoo fee nekk ba sa mandat jeex nga ñëw jàkkaarloog sénégale yi na leen non du ma présenté wu troisième mandat waaye ba léegi am naa ci droit maanaam je ne suis plus candidat mais je reste toujours président maanaam Macky théorie boobu lay dugal ci bopp Sénégalais yi maanaam même toogaay bi muy toog ci kanamu taskatu xaar ñu koy laaj muy tontu sax mu ngi jox boppam daraja joo xam ne tey ji bu doon ni fukk juróom ya dañ na moom tey ji dafa doon def profil baax dem toog seetaan ngemb mbërëm jàppale ko keneen ngemb mbërëm jàppale ko loolu lañuy xaar loolu lañuy xaar ci moom Abdoulaye Wade Abdou Diouf danoo xeex ak moom ci politique mu def consensuel jóge ca créé ay onel créé Sénat bi ñu Abdoulaye Wade moo créé Sénat bi ñu jógee ci onel ñëw ci Sénat gis nañ fi ay front pour la régularité la transparence des élections ñu def ay jéego mille deux mille général Lamine Cissé moo tëgg élection yi onel Mamadou Niang mu ko jiite woon ñu jël ay nit yi mandu ay généraux dénk leen ñoonte dëgg ñu jóge ci loolu ñu ñëw en 2012 moom mi bokk na ci ñi ko doon kaas ñu dindi ismaan Ngom indi Cheikh Gueye def audit fichier électoral bi carte électorale bi ñu teel ko joxe pour la première fois au Sénégal duñu am occasion boo xam ne mag Macky daf ñu ko bëgg xañ mooy ñun danoo tolloon ci jamonoy folli folli dañ doon wax naan sénégalais mën nañ folli mais mënuñu fal mais pour la première fois ñu toll ci fal parce que le président sortant nekkul candidat le président sortant nekkul candidat Macky lii wala fi naan qui s'explique s'accuse mooy tubaab yi noonu ñu koy waxee feeg ngay gën di wax di explication ñu di gën di dal ci sa kaw mais tolluñu woon ci niveau wu toog ay journalistes di ko laaj muy tontu nekkuñu ci jour 31 décembre nekkuñu ci 4 avril. ah ñoon de dëgg nekk ñu ci fin d'année nekk ñu ci 4 avril mais ci Macky Sall lañ gisee président peut-être ci Covid bi on pouvait comprendre parce que Covid bi situation exceptionnelle la woon président génn wax ak sénégalais yi mais lu mës a xew ci yeneen président yi rek mooy xew ci Macky Sall ñu gis ko ci bi muy joteeg Sonko mars deux mille vingt et mu génn foofu on pouvait attendre mais waxam yi yëpp mu mujj génn di wax. maanaam bokkul woon sax ci arminaatu réew mi ay wax yuñ programmé parce que président li ci ëpp dañ daan xaar le 31 décembre ak le trois avril maanaam ñu nekk ci réew mu normal mu génn wax ak réew mi dem toogaat nekk ci soxlay sénégalais yi gis nañ ko fii 31 décembre beew xam ne mook njabootam ñoo toog njabootam famille bi toog nii ñoom non loo xam ne xamewoo ko Abdoulaye Wade xamewoo ko Diouf xamewoo ko Senghor lépp mu recentré ko autour d'une personne te sama sëriñ ba da doon wax naan di nga nit koo gis mu ne maa ko mën maa ko sañ maa ko xam mu ne kooku bu booy wër ku yeewul rek noonu laa ko mën a waxee quoi par kàddu gi ëpp na loolu booy wër ku yeewul rek jàppal kooku parce que nit du nit melul noonu munoo xam lépp munoo mën lépp munoo sañ lépp mais on naa l' on a l' impression que Macky Sall position boobu la indil boppam lépp da ko recentrer autour de sa personne alors que élection le juge des élections mooy conseil constitutionnel mais lépp da ko dajale ci boppam balaa moo am lu ko neex rek woote dialogue ca pale ba ñiy sol seen i grand mbubb ñiy jóge fee mu toog naan ci njëkk de maanaam lépp moom quoi ngan ngan lu lépp c'est lépp moom quoi. ça veut dire que des fois tu te poses lan moo xew mais warul deme noonu aussi maanaam yow sàkkoo sa bopp nit di sax yamee yàlla mooy sàkk njiit bu ko jeexalee jeex na la waykat ba doon wax naan bu leen ko wanteer na jëf yi di méngoog li ñuy dikk askan wi mais kañ la Macky Sall musa janoog sénégalais wax ba pare wax ji leer naññ waru woon xaar ba waxtu wii ñuy wax parce que tamit mi ngi guddal mbayum noor rek di jël temps naka Mamadou Tandian defoon Niger ba amaat beneen mandat korog defoon naa ko sama la le mandat cadeau de Gbagbo ay dialogue ay consertation ak bu ci mënti am amul njariñ benn concertation ak dialogue moom mooy dialogue bi ñu war a am ak le peuple la peuple mooy le jour des élections ñu tànn bis parce que dan ne bu dee ni démocratie bi juróomi at yi lépp njiitu réew mi moo ko moom wala du ko séddoog ñun waaye bis bi askan wi moom mooy bisu élection mais bis boobu nañu ko bàyyee bis boobu nañu ko bàyyee bisu élection sax da ngay dégg ñu naan la mooy bisu respiration democratique maanaam bis boo xam ne maanaam bu doon démocratie bii dañ ko xoj bis boobu lañu waroon nooy ñun ñëpp mu nekk bisu feet élection feet la mais loolu mag Macky bëgg a xañ te loolu lépp li ko indi mooy nguuru ba jàpp ni li la dénk yow yaa ko moom maanaam ba jàpp ni li la dénk yaa ko moom alors que yow da nga waroon doon jaamu askan wi da waroon doon sunu surga parce que ñun ñoo ëpp lii am ah, jël li ëpp ci ñun jox la mooy na la yaay sunu njiitu réew doo fay courant doo fay ndox avion bi gratuitement parce que lépp loo xam ne da lay diisal wala da lay yokk xalaat rek ñun dal la ko teggi pour nga mën a nekk ci suñuy soxla mais bu dee loolu lépp dal la ko teggi ba pare na la yaay chef suprême des armées gardien de la constitution président conseil supérieur de la magistrature cër yooyu yëpp ñu jox la ko parce que daa am loo xam ne da la ko bëgg a ni ay souci ay stress yenni pour que nga mën a nekk ci ñun mais yooyu yëpp bu la ko dénkee ba pare nga nekk ci sa bopp mais loolu sa pose problème sa pose problème te lenn rek mu ko indi mooy say nit ak entourage mais man pourquoi des fois entourage bi du mu ci bëgg a sori mais l'entourage ressemble souvent à l'entouré loolu tubaab di wax parce que mën mënuma gëm ni ñu ne Macky ay nitam ñoo baaxul ay nitam ñoo koy manipuler parce que bari na aussi ñi bëgg mu continuer di nekk ci nguur gi bari na ci ñoo xam danoo sàcc alalu réew mi rek danoo fob alalu réew mi ñu tudd leen ci aéroport te xam na ni bu lii daanoo système bii mën nañu dem ci kanamu yoon wala lañu yoroon ñu ñàkk ko am na ñoo xam ne li jëbalitikaa doon wax moo leen dal ay pouvoiriste lañ ay pouvoiriste nguur rek lañ gëm ñoom danoo jàpp ni danoo war di jaaxaan rek muy nooy ban xëy jóge fi te àddina tëddewul noonu loo gis dafa war a am fi muy daaneele way day am daaneel nguuru Senghor fi nekkoon juuf Abdoulaye wàdd tey ji yéen la da fégal ñeneen ñëw bu neexee day jeex bu naqadee day jeex mais dafa war a rafet mais da ngay dégg ñi ànd nguur gi di toog dans les plateaux wala fu nañu jëm fa gëmuñu mag Macky Sall bëgguñu Macky Sall seen bopp lañ bëgg parce que jàpp nañ ni direction yi yor de warul jeex dañoo war kon ne di fayeeku di yor seen i kat-kat di yéeg di wàcc di doon ñii doon ay ministre dañoo jàpp ni fañ ne waruñu fa jóge ñi doon ay député assemblée bi dañoo jàpp ni ñoom fa ñu ne waruñu fa jóge parce que li assemblée bi lu tax ma ciy taxaw da ngay seetlu benn mbir pour pourquoi ñu engagé wu à ça mais parce que bu ñu amee un nouveau président bu fi ne rawatina bu nekkee ab opposant assemblée bu day tas assemble bu tasee après deux ans mais beneen assemblée yi taxawal du ñàkk am na ci ñoo xam ne xam na ni Macky Sall rek moo mën a tax ñu doon député ci réew mi mais bi fi makki jóge woon duñ doona ci dara moo tax nag ñooñu luñ mën a def ci assemblée nationale dañ koy def. parce que fi ñu egg ñu ko sóor ci àddina du seen njàng du seen xam-xam du seen daraja du sa sax seen étique nit mën na bañ a jàng mais am éthique am ay valeurs yoo xam ne lu ne mën nga ko dénk dama dégg Abdou Mbow à l'Assemblée nationale mi agité wu léegi bu ñu demoon ba un le balaa le 2 avril le président assemblée démissionné dem nekk président ah, Abdou Mbow est-ce que nekkul ni li muy gasal boppam mooy bëgg a nekk président assemblée parce que moo jiite groupe parlementaire bu bennoo commission d'enquête bi boo gisee engagement bi mu ci am ak taxawaay bi mu ci am dem ba ne justice bi wax lu leer mooy plainte bi dugg na léegi commission bi liggéeyam jeex na ñoom Abdou Mbow kon ne di agité la commission Abdou Mbow est-ce da koy def pour réew mi est-ce que da koy def pour assemblée bi est-ce que defu ko pour boppam parce que dafa am ay probabilité yoo xam ne tey jii waxuñu lii ne la mais lu mën a ne la mooy Macky démissionné président assemblée bi bu doon dafa jël réew mi bu ko jëlee kan moo nekk président est-ce que Abdou Mbow loolu lay lii te Abdou tey ji boo nekk le président de l'assemblée jege nga pe jege nga donc si gi maanaam mën nañ dem sax ba egg ci niveau boo xam ne tey Sénégal adduna moom yàlla moom du nit situation bu ne mun na ko créer Abdou Mbow est-ce que li muy xeexal boppam du moom. loolu de des fois li naan bokk ci cool yi xam lu ko waral moo ko gën seen privilège yi ñu am ak dossiers yi ñu am ci wàllu yoon lañ jàpp ni lool warul leer am ñu jàpp ni nguur gi warul jeex danoo war a kon ne di bànneexu kon tey jii mag yi xaaruñ ci moom dara ak lu mu mën a wax ak lu mu mën a def war a yeewi askan wi jàpp bis ñu jàpp élection beneen yoon nga dégg ñu ni la élection mun na waaye est-ce que du nu battrewaat carte gi parce que candidat yi jàll arrangé wu nu Macky Sall mais buñ ko arrangé wul loolu lu suñu yoon ñun bu defee un mauvais choix sur Amadou Ba bu dee ni la présence de Diomaye da ko da ko surprendre da ko bett mais loolu ñun suñu yoon nekku ci amuñu problème ak kenn nan baatarawaat carte gi alors que le conseil constitutionnel même bi ñu génnee Rose Wardini nii tappalekat PDS yi doon wax naan sax est-ce que duñ tëggaat mbir mi conseil constitutionnel mettre na à jour la liste na léegi 19 la ñuy dem élection lan lañuy ñuy xaar ban explication war waruñu xool li déranger ma sàmba wala li arranger ma sàmba danoo war a xool lan mooy arranger sénégalais yi loolu ci leen war a egg mooy lan moo arranger sénégalais yi ñun ñëpp ñu taxaw ci def ko kon yeewi askan wi jot na yeewi askan wi jot na te yeewi askan wi da ci bokk libération des détenus politiques la libération de Sonko la libération de Diomaye la libération de maître Ngagne Demba Touré da cee bokk parce que ñoom ñëpp ay détenus politiques lan dem lu maître Souleymane Ndéné Ndiaye wax day dëgg ak lu ñu mën a wax ak lu ñu mën a def discours yi discours politique la mais engagement bi engagement politique la mais heureusement Souleymane Ndéné Ndiaye am na culture politique dafa bari ñoo xam ne dañuy ànd ak Macky Sall amuñu culture politique amuñu culture juridique parce que tey Macky mii bu amoon culture juridique xam yoon dëgg-dëgg yi gudde gi mu dugg du dugg gudde gi mu dugg du ci dugg te les détenus politiques bu kenn bàkkoo ni maa leen génnee maa leen génnee bu ko kenn bàkkoo yi nga ni politique yi nii peuple bi moo leen libéré le peuple sénégalais moo leen libere comment mooy bi ne élection yi dañ ko reporté peuple bi àjjuma danoo génn génnandoo te kenn xamul kan moo leen génnee la communauté internationale CEDEAO ONU Union européenne OTAN ñëpp génn organisation droits de l'homme yi nekk ci àddina ñëpp génn ginnaaw ñetti nit yu faatu démb la ñeenteel bi faatu di ab étudiant ak dégâts collatéraux yi ci am nguuru Macky Sall yëngatu parce que boobu nag peuple bi dañ ne ku xamul buur saay la ñun la buur dee na ñun la ku xamul buur dee na nag ñu wax la leneen du mu ci egg Macky xam ne ci Sénégalais yi jëm ak li leen yëkkati parce que jug yi njëkkee daan na ko jiñ Sonko bii mais xamul lu yëkkati nit ñi mais li leen yëkkati yomb naa analyser mooy réew mi Macky bëgg a yolomal buum bi. ne nanu bàyyi ay détenu politique nanu bàyyi ay détenu politique démb waxaat nag conseil des ministres ñu xool na lay juboo pardon am baale mais ki ngay baal mooy ku tooñ fii li fi ne mooy bu dee ni tooñ dafa am tooñ gi dafa féete fépp nguru Macky gi ci tooñ lañ dëkk fi Ousmane sonk leen fi jël jag-jagee ko jiñ ko lu dul dëgg jël corruption à la jeunesse teg ko ko tëj ko ci kasu lu dul dëgg topp ay Antoine Diome ak Ismaïla Madior tas partem foogal ni buñ ko defee Pastef léeboon nag léppoon lay doon mbir mi di gën a dëgër mbir mi di gën a dox Ousmane sonk bu doon ni ba muy dugg prison ab parti la fi bàyyi ba mu duggee prison parti genn wàll moo judd ci ginnaawam maanaam lu ëpp parti loolu nag mbiri suñu boroom la mooy la Abdoulaye Wade waxoon Idriss Seck rek bi may dem benn parti laa fi bàyyi waaye bi may ñëw parte genn wàll laa fekk loolu moo am ci Pastef Macky dem ba xam ne lii c'est une réalité mënatu ci dara le projet bi mu ngi dox ginnaaw ba Sonko nee de ba nee demul mu pousse Jomaay coalition Jomaay ñëw nekk coalition triple XL mu xam fi élection yi jëm léegi mu choisir entre la pire et le mal adduna ñaara fi ne da ngay xam li gën ci yow ak li la gënal bi mu xamee ni nag foofu la mbir yi jëm te jomaay mi mën na jël réew mi te ñiy xeeb jomaay xamuñu ko mës naa ko wax fii am ku ne ma non bu ko wax mais mu koy wax ji nga passé projet la ñi ay administrateur lan jàngee ENA dem inspecteur de des domaines ci biir Pastef am na ay inspecteurs du trésor Pastef crème bi c'est des intellectuels c'est pas des gens yu ñu ci mbedd mi wala des politiciens professionnels yoo xam ne xamuñ fu ñu jëm Macky ne Diomaye mi bu jëlee réew mi day libérer jeunes yi te bu boobaa sama nguur gi mën na rangi-rangi Macky bi muy reporté élection yi xam na ni bu ko reporté coow am nit ñi dinañ gën dinañ xeex dara bettu wa ko ci mu ne gàtt gu gàcc moo gën gu gudd comme ñaaw na ba noppi xaaral ma jëm ci rafet tuuti moo indi libération détenus yii askan wi ñoo xeex ba libérer les détenus parce que bu ko deful woon président bu fi mën a falu day libérer les détenus te sondage yi ki mu gënoon favorable mooy le candidat di projet Pastef c'est Bassirou Diomaye Faye waxuma la jëmmi Pastef mais bi ñu tegee coalition bi la nekk ci ginnaaw Diomaye mosul nekk ci ginnaaw nit ci réew mi dem wuy ji ginnaaw vidéo yu son ko def loolu mooy dëgg mu xam ne bu génnewul booy yi jéemut a xool nan lay lijjantee mbir mi parce que bi muy pousse élection yi xam nañ dina jur coow de àddina dina ko mbamb mais gëmul woon ni mbamb mi dina egg fii léegi nag mu ne nan laay fexe doxe sama diggante ak Ousmane Sonko rafetal ko mais ci dox boobu ak wax boobu da ci am loo xam ne bu ci waa Pastef daanu mooy da leen a bëgg a jaxase yaa ngi dégg ñu ni la Bassirou Diomaye Faye candidat la nga dégg ñi farag ki ñam ñëpp boo xoolee day ñàkkal fay la Diomaye alors que li Sonko jàng la Diomaye jàng dama ne Pastef bu doon ni jëmm ji mooy Sonko bopp bi ak xel mi doo ci génnee Diomaye yaa ngi gis loolu mënoo ko ci génnee léegi nag loolu jaaxal leen léegi ñu xool na lañ koy gën a rafetalee léegi nag jaxase boobu may wax nag waa Pastef war a maytu mooy danoo bëgg ñoom ñu ne noonu nan rebattre carte gi nan ko baatre waat léegi Bougane Gueye mun na ñu fexe nan la Bougane di bokkee nan fexe nan la Karim di bokkee nan la Sonko di bokkee bu boobaa mën na am nit ñi ne mais sunk boppam a ko ñor toolu coow li ak nit ñi dee yëpp même jomaay bi mu doon wax moom sa gëmu ko léegi ñu dugal confusion boobu ci biir Pastef malheureusement ay nit ñu mat ñoo fa ne ay nit ñu mat parce que confusion boobu bi Sonko di tànn candidat yi ñi jëli parrainage ñoom Abbas Fall ak ñoom Birame Souleye ak ñoom ñëpp confusion boobu créé woon nañ ko même mais doxul même bi ne candidat bi tànn nañ ko moom mooy Diomaye dégg naa ma jambal génn sax nan Birame Souleye àndu ci ci biir Pastef danoo xaajaloo mais loolu lépp ñuy junj ci Pastef ak di ko wax amul loolu lépp ñuy junj ci Pastef di ko amul mais benn crise la buñ bëggoon a créer léegi nag échec yooyu yëpp ñu échec léegi nag bii mooy carte bu mujj bi ñuy joué mais Ousmane Sonko lay wax man lenn ak ñi ànd ak ñoom bokk ak ñoom projet mooy jomaay mooy Sonko Sonko mooy jomaay ji nga wax jooju noonu bu mu doon luy wax be nañ ko gëm la Sonko waxoon ca Kër Massar mbir mi du lii affaire bi projet bi la bi mu koy wax ñu bëri comprendre yoon parce que boo xoolee tey détenu politique yi ni leen jàppee ak ni leen génnewee nga xam ne système bi dafa war a changer système bii réew mi doxee depuis 60 ans dafa war a changer boo xoolee ni mag Sall di doxalee nii di fooye waa réew mi mais système bi dafa war a changer ak ku ko mën a changer dafa war a changer mais waratul doxee nii ay xale ñu jàpp ci kaso xëy rek na bàyyi na leen comme saa ba ci maître Ngagne Demba Touré la même chose jàpp guñ ko jàpp gënul mais dafa tane xamul lu mu tax mu tane. maanaam dafa mel ne waa Pastef doon doon nalaw quoi nalaw ñun leen yeewu leen parce que yi bi mu bàyyee ay trois cent personnes ak yooyu nit ñi doo jàpp ni Macky ci lu mais jàpp ngeen Demba day tax gars yi ne ah Macky de loolu nag ngeen Demba Touré pour man après mandat d'arrêt ci nit ku jàng yoon bi wàcc réew mi xam na ni dañ koy jàpp léegi nag nguur gi pour ñu xam ne ñoom ñi ngi ci logique gu jàmm jàpp nañ ko c'est normal parce que dafa nekkoon sous mandat d'arrêt mais nan ko may liberté provisoire mu génn wala ñu def ko sous contrôle judiciaire mais buñ ko continuer di téye malgré pression bi greffier yi di teg ak tribunal kon dañ naan nguur gi lan doon wax du dëgg décrispation ak dox jàmm ak waxtaanu jàmm yi naan moom lañ du dëgg mooy pression bi moo tar gars yi di leen dóor daal mu saf ñu ne nan yolomal tuuti man nag dama ne ngembal saay-saay du tas da koy yolomal heure bu jekkee takkaat ko ba mu dëgër fa seenee xeex loolu nag moom mooy wax ji tey ji jëmee ko ci réew mi fi ñu jëm tekki liberté provisoire yi ñu génnee boo déggee Aïssata Tall Sall ni mu ko waxee liberté provisoire tam démb maître Cheikh Omar Diagne foofu laay tëjee leeral na ko mooy à chaque fois ñi ngi may procureur pour mu am la possibilité def appel kon tey ji ñi ñu bàyyi ñépp bu neexee procureur mu def appel pour ñu waar leen kon ku jàpp ni bàyyi mooy wane ni mag yi mi ngi ci yoonu jàmm yaa ngi nax sa bopp bu bëggee jàmm na ko dox na jàpp bisu élection yi ñi ci kaso bi yëpp mu bàyyi leen bu dul loolu ñaaw na ba noppi wala day gëna lii rek kon di jégalu ñëpp di balu àq ñëpp bu dee am na njumte ci kàddu yi di gërëm ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi di nuyu bu baax euh, El Hadj du Diouf euh, ci régi bi topp Ablaye ak euh, Fallou ci solution info ngeen ñu doon seetaan 30 euh, minutes chrono Omar Bun Khattab Guèye moo leen ko doon présenté beneen euh, alxamis euh, beneen 30 minutes crono mbokk yi jërë ngeen jëf.